naa na ma kenn ak koo mën a door la. man de ñaanal ko man mi jaar naa kenn waajib woon jaar naa yal na leen yàlla xaree àjjana sant la rek. mu ne sa yaay lan la ci yow. waaw sama yaay. c'est c'est large. sama yaay actuellement c'est ma fille. Lisa. <laughs> What? sama kii sama femme. ndeysaan. que dafa xam benn nit maanaam. mu jur la fi la war a juree nàmpal la yar la ci siraatal mustaqim teg la fi mu war a teg kon donc tey defe naa buñ ko tudd. ndeysaan lii de lu méttee metti la fa dëgg yàlla metti na lool metti na trop ñàkk yaay ñàkk bàyyi nekkul nag loo xam ne lu bees la fi xanaa kay gën bees la moo am waaye metti na trop. Wally Seck ndeysaan ñu ngi lay ñaanal yàlla may la xolu ci sa waajur bu jigéen bi nga ñàkk parce que ñàkk waajur daa metti surtout koo xam ne euh, mooy sa wéeruwaay koo xam ne tey jii boo jaaxlee ci moom ngay dem nga xëy benn bis rek gisatoo ko loolu lu metti la ñàkk yaay ñàkk bàyyi lu metti la waaye ñàkk yaay mooy ci rawati euh, ñu lay ñaanal yàq sa say rakk rek yàlla may leen xolu muñ te yërëm sa waajur bu jigéen bi nga xam ne tey jii moo fi bàyyi ko dëgg yàlla lu métti la. bi ma seetaanee vidéo bi laa xam ne sa yaay toll na fu sori ci yow parce que wax bay jooy ndax am nga loo dund ak moom loo xam ne marke na la tax nga jooy fa dëgg yàlla métti na trop métti na. ku mu doonoon yow tamit di yow dëgg yàlla ñu ngi lay ñaanal daal yàlla may la xolu muñ te yàlla daal lay kàttanal daal lay dooleel daal lay dimbale ba nga mën a oofu ñi nga xam ne ñooy say rakk waaw metti na trop ñàkk sa baay toog tuuti ñàkk sa rakk toogaa tuuti ñàkk sa yaay mett na waaye nag yàlla moom mooy do mooy def lu ko neex mooy dogal ci ab jaamam loo xam ne tey jii du sañe bañ même bu bañee sax mënu ci dara même bu fekkee daa bañ na sax lii nii <laughs> du am teewul day am ndax yàlla moo moo ko fi indi woon te ba mu koy indi tàgguwu la kon bu ko fi jëlee kon du la tàggu waaw te ku nekk daa am sa bis boo xam ne tey moo ngay xaar ci àdduna bu ñëwee waxtu waak ba lépp du jaas dafay egsi ak ñëw ah, te day bette amul kenn koo xam ne dafa faatu te faatu gi bett ko amul kenn ku faatu koo xam ne tey ji daa faatu te bettewul képp ku faatu rekk ak faatu mu bette na waaw moo xam ne mën faatoo nag waaw faatu moom day bette nekkul loo xam ne eh, danga koy xam mu ñëw nga xam ko nii nii nii waaw non noonu non da bett bett goo xam ne dina bett sa jëm sa jëm waaye itam bett say mbokk parce que duñ ko foogee waaw duñ foogee ne nit ka diw mi sàngamkat kat war dina génn àdduna ci lii wala ci feebar bi wala ci nangam nangam te en général yàlla bu lay jël xëy na mën na laa jëlee ci feebar boo xam ne feebar bu ndaw la. waaw mën na laa jëlee ci feebar bu ndaw boo xam ne ñu bëri duñ ko njort waaw duñ njortu mais nag yàlla moom noppi na ci ay mbiram lépp maanaam lu war a am noté na ko ba pare yàlla noppi na ci lépp ñun kay ñooy kërti kërti dem ak ñëw waaye yàlla moom pare na ci lépp waaw dëgg yàlla ñu ngi koy ñaanal daal yàlla jéggal ko moom soxna Fatou Diaga te may xol muñ ak njabootam. métti na trop vidéo bii dama marqué trop. man nag Wally Seck euh, duma ko bàyyi xel lu bari waaye vidéo bii ma seetaan dama marqué parce que euh, wax ba jooy ñàkk sa yaay dafa metti donte maag moom bokkuñu ab jëmuwaay bokkuñu fu ñu jëm euh, waaye jullit la may jullit day jaamu yàlla may jaamu yàlla kon su ma gisee lu ko dal loo xam ne mi ngi ci kawam lu naqari dinaa ànd ak moom ci loolu parce que dañ sa mbokkum jullit euh, li nga ko mënal rek moo di bu jaaxlee nga daal koy defal bu jaaxlee nga defal ko yoon nag bul xeeb la nga koy wax wax ko rek waaye bul xeeb mukk ne lii ma koy wax du ko amal njariñ yow waxal rek waaw noonu dëgg yàlla yàlla na yàlla may xolu muñ daal te jéggal sa waajur bu jigéen bi